non sama xarit la sama xarit la. ana Thiou. non sama xarit la boobu. mais Mbaye yàlla na jàmm yàgg. non sama xarit la. mais ñoo gëj naa la gëj naa gëj nañ laa gis de. waaw maa ngi nii nag. mais maa ngi waajal lu garaaw fii ci Almadies. le 16. fan fan. fii classico. classico man. waaw classico ah bii nii ah. waaw ah fi ngay waajal. waaw le 16. le 16. waaw mardi bii di ñëw bu del see. Ah, ah. ma ciy woon samay fans ndax dañ maa bëgg. caravane ah, yi yàq na tàkk. autorité yi jënd nañ. fans yi jënd ñëpp bëgg ma. mais mais si la ah par euh, euh, benn instant nga ko def rek wala da nga incha allah dama ko bëgg a continuer. dama ko bëgg a def continuer ko tous les mardis. signé nga contrat ba pare. waaw maa sama staff nag loolu staff bi laa ko bàyyal. ah mais pourquoi lu tax lu tax nga def jóg mbay la bagage dugg. ba jékki-jékki nga commencé yebbi ko. parce que bagage yi bari woon. di nekk sama bopp bagage yi nekk sama bopp. moo bari. te rek laa am. soppay ma leen di bégal. mbay damaa génne lu bees tax. war cee toj yàlla dogaloon nag ma voyagé woon. Euh, amoon ay tournée yu ma amoon. yàlla dogalaat ma ñëwaat. tey bi ma ñëwaatee. tase ak yow sama xol daa set. yaa ma njëkk a jël tey. kon tey ah kon nga pare ñëpp lañ la jël suñ la gisee rek. waaw ñëpp lañ la jël. kon Mbaye maa ngi ñaanal ñëpp man maa jamono ji maa jiite carte gi. waaw maa jiite carte gi. yaa fi ne yaa fi ne. <laughs> waaw maa jiite maa maa jiite mais. def ak sa say fan si dégg naa waa waa yëmbal dañ la bëgg. waa waa benn baraak. waaw ñooñu ñëpp yaay waykatu banlieue bi. waaw maa waykatu ah, Sénégal. Ah. maa waykatu lan moo tax ah, sa di non parce que nii may xaar. waaw xam absence bi yàggul. benn temps bu ndaw la. yàlla dogal ñu def ko rek ñëwaat. mais agsi waat nañ. jënd ay affaire yu waar. waaw yaakaar naa ni. ñun liggéey rek lañ gëm te fans yi ñooñu tax di liggéey ak ku ci mel ni Mbaye Babacar bi nga xamante ni saa bu ñu gisee dégguñu kebaraaw kon ñun dañoo war a liggéey ba tey man ku liggéeyul sax su ma la doon dégg su maa ngi ñëw sa kër de waaw xanaa la yàlla may mais da gamo na waroon ñëw euh, fan yi ndeysaan euh, euh, fii sa sa koñ ndeysaan falaa bëggoon ñëw yëmbal pour wax wax la wan na Sénégalais yi foo nekkoon ak lu la téye. mais mais wuy ma. Ah. Mbaye. Ah. fils dama invité. Ah. te xam nga lépp. waaw. faa ma dugg. mais lan moo tax doo ay si ay ay boof si ñoom ay si waal xam nga. bu ñu la gis yaa xanaa yàgg waal yi neexoo waaw waal yi bërki dem rek maa concert am. wala invité dem invité ma donneur Kër Massar. ah waaw ba ñëw mu taral waaw tey nag maa ngi fii. waaw. Sénégal jëm kanam. réew mi jëm mais moo tax euh, euh, musique bi bëri coow jamono waaw musique bëri coow musique moom xamoon faa mu am coow parce que soo bis la rek ah, ah. mais coowkat baa ngi ñëw jógu mbay ngi nii seen baay ngi ñëw seen baay ngi ñëw ma ñëwee lépp leer yaa tax waykat yi yaa seen papa lay daaxe ne la ma